doxinu liggéey bi nag ak méthode bi ñuy doxee ngir bëgg liggéey bi gën a yaatu euh, ndax fii la soxna Bintou Sarr dëkk waaye 2019 bi amul weeru la 14 fu jàll te dëwun fii am ndaje ngi soxla fii am ndaje tey si lan saara euh, jaayante yooyu suñ doon wax suñ bi soxna yi si la nekk di si jàmbaar lool ndax siècle 14 muy soxna Bintou wala muy soxna May ak Jum siècle 5 ku nekk fa nga war a defee la la 5 wala la 14 bi lu mu gàtt gàtt da nga luyul woon ñaari kaar wala ñett ànd ak mbooloo mi ñëw muy fukki weer ak ñaar loola pëstif la boo xam ne euh, ñu ngi leen koy seeral ñun ñi nga xam ne ñoo amanoon liggéey bi xañ na nag li lin gaaral nu Touba kanam gën a yokk ay jumtukaayam ba tax liggéey bi gën a mën a jàppandi loolu te loolu ab soññ la si Touba ca kanam ngir Touba kanam yokk ay jumtukaayam ba liggéey bi gën a jaa euh, gën a gën a jàppandi waaye ñoom si jaayante googu gi si leen dëkk kon ñu ngi leen si sant bu baax ah, di leen si gërëm loolu nag comme que ñun ñoo ànd na ñoom liggéey bi fukki weer ak ñaar rek ba sëriñ bi teew dañ koy euh, euh, leeral ak sëriñ boo xam ne soxna yii si jaayante googu yi la ndëkk ndax fu nekk la fu nekk ci biir tubaa teg na fi seen tànk bi ngir yaatal liggéey bi ngir euh, fexe ba Touba ci kanam gën a jëm ci kanam kon soxna si ñu ngi leen di sant di sant ñëpp noonu yi la ko soxna Bintu Mbàkke taxawee noonu la ko soxna Mame Fatou Mbaye taxawee noonu la ko soxna Fatou Dieng taxawee noonu la ko soxna yëpp taxawee moom mi ngi leen di sant bu baax a baax cant goo xam am na tàmbali waaye te amutu bi mu waaye nee na alhamdulilahi rabbil li ngeen bëgg di doxee da ngeen koo wax fii ci kanam mbooloo mu di ko dégg ñim àndal di ko dégg loolu moom nee na sant na ci bu baax a baax a baax te di ko gën a def ci xelam ak xolam bu wóor a wóor a wóor ndax euh, sëñ Tuubaa dafa wax ne arsalahu rabbul wara bil xalqi mubashiran xayral wara bil xaqi da ngay bégle tey xuppe tey ñaaxee nee na loolu rek la fi euh, euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee kon tey bu ànd ak yéen liggéey bu mel nii tey ngeen di ko ci ñaax di ko ci bégal di ko ci jàpp di di won di ko won loo xamante ni bii ni ngeen def seen bopp ngeen ko def nee na loolu doy na ko sëkk amatu fayam te itam xam naa ne xaj na sax wax gi ab liggéeyam mën naa am gënalu ko wala yéen yi nga xam ne yéen a séq ak moom liggéey bi gënalu ko waaye lii nga xamante ne bii moom lay liggéey mu néew mu bare bu ko yàlla dimbalee mu gën a dolleeku tuuti jëm ci kanam mbooleem luñ fi def bu soobee sëñ Tuubaa dana aw ña dana dana lijjanti lijjanti ba ba delloowaat ko ci ci kër gi te boobaa yéen da ngeen ko def ko war a def kon nag daal mi ngi leen di sant te xam ne nu ngeen bëgg a doxeek moom rek ànd na ci yéen yéen ay yéen ay yéen ay ay ay ay ay magi taalibeem yéen ay ay sëriñam yéen ay léppam te waajuram ba sëñ Basiru Saar jaamu sëñ Tuubaa da daan wax ne la war ci diggante jaamu ko sangam mooy bu mu takk ci baat bi dégg nga da daan yëkkati addee téeméeri million jox ko sëñ Saaliw ni ko la war ci diggante ab jaam ak sangam mooy wutug bu mu takk ci baat bi foo jëm yóbbu ko loo bëgg wax ko loo yónnee yónnee ko te nee yoon wee woowee waajuram jaaroon ci la teg tànkam xam na ne ñii di ay magam suñ ko moo a def moom moom ñoom ñoo koy def waaye nag nit ku ne am na lu yàlla cërale ci sa kër baay te lii ab cëram la boo xam ne ci kër baayam moo ko fi yor kon nag ma mu ngi leen di sant cante goo xam ne am na tàmbali waaye te amatu bi yam waaye tey ñaan yàlla li li liggéey lépp euh, sëñ Tuubaa nangu ko ci barke borom Tuubaa maa ngi baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamaaleykum soxna Bintu Sarr doon nemmeeku ci compte bi mooy daanaka vingt millions yi li ci manqué bariwut waaye di wax rek ne le 30 bi incha allah Touba ca kanam grand collecteur yi mu am yëpp maanaam ñi nga xam ne dañoo yor mbooloo mbooloo mi di leen verser ñuy verser ci tubaa ca kanam dinañu daje kër sañ Touba def benn bilan bu yaatu ci liggéey bi ñu jot liggéey ci at mi yëpp kër sëñ Touba gi ci euh, Daaru Marnaan di leeral rek ne sàkku sàkkuteef bi soxna Bintu saar def mu jëm ci wàllu jumtukaay yi ñuy soxla ci wàllu liggéey bi Touba ca kanam dafa organiser. prévoir na ci commission commu euh, commission massification budget boo xam ne daa war a dékku transport beeg yi nga xam ne yëpp ay soxla la yoo xam ne ñi yëngu ci wàllu blog yi yitte woon nañ ko léegi nag liggéey bi moo toll foo xam ne budget boobu ci la ñu war a xalaat nuñ koy yokkee yaatal ko ba nga xam ne ñi nga xam ne mbooloo mu bëri la leen a wuyu si ñu xool nuñ leen ciy jàppale ba métit yi xaw a wàññeeku ci ñoom waaye xam nañ ne liggéey bi liggéeyu jaayante la te ñëpp ca njalbeen ke ba tey kenn mësta ñëw di laaj dërëm bi gën a ndaw Touba ca kanam kon nag loolu ñu ngi ciy bàyyi xel di ko seereel suñu kilifa yi di leen sant bu baax ci taxawaay bi jërë ngeen bi di sëriñ Habib moom Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne mooy yu ñu Touba ci kanam ak ci mbooleem waa Touba ci kanam kilifa yi mu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di fam nuyoo bi di ko teg ci loxol sëriñ Saliou Sarr bi nga xam ne moo fi nekk sëriñ Bassirou Sarr ak mbooleem ay rakkam yépp di nuyu soxna bint mi nga xam ne moo woote bis bi di ko sant bu baax di ko jaajëfal di nuyu mbooleem mbokki dëkkandoo yi ak mbokki taalibe yi rawatina njabootu sëriñ Bassirou bi nga xam ne ñoom ñooy kilifay gox bi sëriñ Habibou nee na mu ngi leen di nuyu di fàttaliku it kilifa yu baax yi fi nekkoon di ñaanal sëñ Bachir saa suñ mbaxam yokk ko dafa jàng ngëwam fa mu nekk di fàttaliku di ñaanal itam xalifaam bi fi bàyyi bu yeggu di sëñ sang te moom yàlla dogal bi ñuy tàmbali liggéey bi ñu ñëwoon fi mu amoon ci pëccëf lool ak yéene joxe ci alalam donte fekkoon na ko mu xaw a libbet itam waaye teewul mu feeñaloon ci yéeneem moom sëñ bi nee na mi ngi koy fàttaliku ci ñaan bu baax di fa di sàkku ci mbooloo mi ku fi teewit nga bu baax di sant soxna Bintu nag bu baax a baax di ko jaajëfal ci ab taxawaayam ak pëstéefam ak itteem ci liggéey bii di liggéey Touba ca kanam ndax bañ ko tàmbalee mu sóobu ci takk ak laxasaayam ba tey mësu koo tekki waxtu wu ne ma ngi ciy wane ak njàmbaar waxtu wu ne mi ngi ciy wane pëstéef waxtu wu ne mi ngi ciy wane jom jumat sëkk mosu cee des gannaaw benn yoon kon nag sëñ bi nee na mi ngi koy sant di leen ko seeral yeen mbooloo mu fi teew yéen ñu ànd ak moom itam mu di leen soññi ci ngeen gën a takku gën a topp ci ginnaawam bu baax te xam ne kat jëwiñ ju mat jëwiñ la ndax lam fekkoon ay maamam fekkoon ci ay baayam ca loolu rek la nekk ndax kenn ku nekk xam na ne seen maam yi nga xam ne yàlla dogal na ci lañ meññi di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ bokk na ci ñi njëkk topp sëñ Tuubaa te njëkk sëñ bi di woote it njëkk naa defal sëñ bi loo xam ne booba sëñ bi ba mu koy def lu soxla na ko ku ko defal ndax booba sëñ bi dafa nekk Mbàkke di yónnee Poroxaan ku mu bëgg a yónni nga ne ko ah man de du ma mën a dem ndax su ma demee damay jéll bind te bëggumaa jéll bind Cheikh Ibrahima Sarr ne ko mën naa laa demal te booba jóge Mbàkke Kajoor dem Poroxaan metti na lool ndax booba dafa dox kam doon yóbbu daa waru fas ma mu sant ko war ca topp ca fas wa di dox ba àgg Poroxaan ndoxi Mbàkke ba Poroxaan ci la ko sëñ Tuubaa defal defa la loon bayitam yooyu ne ko jasaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka xayral jasaa mun a daaway ko awlaaka bayit yooyu ci la ko sëñ bi defaloon nga xam ne booba sax sëñ bi wóoteegul yoon wi ndax booba maam woon seli ngi bii yàlla dogalee maam woon seli wàccub liggéey te moom bokk na ci ñi nga xam ne jàng leen fi andi woon ci maam woon seli waaye ajjuma ji nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ñu fanaane laylatul xadr ba fajar sëñ bi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu na ko wax na ko rabbi asaabaka bil himmati wala torab bi bi daw si faxat mu ne suñ am xamal yonente bi sallallahu alayhi xamal na ko ne ko na nga yaw nit ñi ci himma ci itte ci tarbiya leen te bu leen yar ci am njàng dong mu ne bis boobee ajjuma joojee mu ko waxee Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne bokk na ci ña ko ko jox boppam ci ajjuma jooju ajjuma jooju wax nañ ni sëñ bi juróomi taalibe la ci am Cheikh Ibrahima Sarr bokk na ci juróomi taalibe yooyu booba daara ji bari na ñoo xam ne dañoo laxas ne ñoom daal jàng leen fi indi woon te doomi soxna moom jàng lañ ci xam kon ñoom dañ jàng leen fi indi woon bu sëñ bi daal ginnaaw day ñoom dañuy dem njàngi laxas dem waaye Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye bokk na ci ñu doyloo sëñ Touba des ca daara ji ñaari njëbbal sëñ bi nee na ñaari njëbbal la am kon moom mooy ñaareelu njëbbal am na ñu wax ne sëñ Adama Guèye jiitu mu topp ci bis boobu am na ñu wax ne sëñ Mëndumbe ca la bokk sëñ Masamba Diop Sam ca la bokk sëñ Dawa Assane Ndiaye am na ñu ko wax. waaye juróomi njëbbal daal mel na ne li gën a siiw ci taawaay moom la sëñ bi am ci bis boobu waaye sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye moom bokk na ca juróom ñooñee wax nañ ne kenn ko jiitu kon kooku kenn njëkk ko ci sëñ Tuubaa kon ak njabootam nag bu ñu dee liggéey sëñ Tuubaa ñu takk laxasaayu ànd ci kon ñoom wàcc nañ. yàlla dogal na itam ki nga xam ne mooy maamam di way jiw sëñ Bassirou Sarr mi di sëriñ Sarr mi nga xam ne moom it moom la sëriñ bi la ko tudde woon joxoon ko ko sëñ bee ko yoroon te moom itam mu doonoon ko am tawféex amoon xaas lool sëñ bi sëñ bi da ko fonkoon lool te bëggoon ko moo njaboot gi fa mujjoon a nekk bokk na ci ñi gënoon a ràññi ko ci fonkeel ko sëñ bi fonkoon moo maami sëriñ Habib mi toog di sëñ Modou Khary Niang mi nga xam ne moo ju way jiw sëñ Habib ñooñu wax nañ ne sëñ bi daana dig ba guddi mu ngàbb ab lamp ab lamp di leen seet ci kër gi loolu ñoom ñu bari mag ñu bari seere nañ ci ñoom ak fonkeel gu leen sëñ Tuubaa fonkoon gum leen bewaloon ab cër loolu yi doy na sëkk ndam sëñ Bassirou Sarr képp ko xam ci liggéeyal sëñ Tuubaa ngoo xam ndax dàkkental bi mu am ci yoon wi ñu ko am bëriwul jaamu sëñ Tuubaa loolu ñu ko am bëriwul te njaam googu mu def boppam ci sëñ Tuubaa nun ñëpp moom lañ ci moom waaye moom doxal na ko ba mat sëkk ndax mës nangoo moom lenn mës sa nangoo am lu mu mës a am jox ko sëñ jox ko ñooñ sëñ Tuubaa sëriñ Habib mi yaakaar naa ne loolu am na lu mu ci xam ndax wala wéyam la woon lool bari na lu mu seqoon ak moom kon soxna Bintu yoon wi mu jaar mooy bi nga xam ne moom la fekkoon ay maamam ak waajuram nekk ca muy liggéeyal sëñ Tuubaa ñoom seen lépp sëñ Tuubaa la seen lenn mës a génn sëñ Tuubaa kon soxna si bu laxasaayoo fas yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa ci liggéey bi kon def na li mu war a def wala fi nag dañ naan àll matt na matt ñu ne ah kay ndax am na àll boo xam ne amul matt kon soxna si ñu ngi lay sant bu baax li la jaajëfal di wax itam ñi topp sa ginnaaw ñu gën a góorgóorlu bu baax gën a ànd ak soxna bi te xam na kat waa Tuubaa ca kanam moom gis nañ ab liggéeyam gis nañ am ñaam ak njàmbaaram poste de santé bi nga xam ne moom lañ fi def te yàlla dogal ne moom la Tuubaa ca kanam njëkk a taxawal bi ñu koy def Abdou Diaw xëy na 1800 wet moo fi nekkoon di ko taxaw waaye seeral nañu ba tey njàmbaaru soxna Bintu gum ci gum ci wane moo leen gàddu loonum añ li ci ëpp di leen gàddul kafe ngoon di leen gàddul ndox mu sedd te loolu lépp da koo jaayante woon di ko def ñu ngi yàlla jëmi sañ Tuubaa kon nag soxna bindu ku Tuubaa ca kanam bàyyi xel la te xam ne kat fañ jëm moom dara du fa doy te wàcc moom ci ab taalibe genn la yàlla na yeex ab taalibe moom faatu doom koy tax a wàcc waaye li fekk mi ngi dund du wàcc ginnaaw nag sun sun ginnaaw bakkan it yaakaar lu sëñ Tuubaa mm. te moom kenn ku nekk li nga yaakaar ci moom boo demee loo ci fekkut ci yow la mm. waaye waxoon na ne moom taalib bi yu ko yaakaar yëpp suñ faatoondoo woon ci seen saa mm. ñu dugal loolu leen bàmmeel ci seen saa mën na leen nangoo ci nangoondoo ci seen saas te kenn ku nekk da ngay defe ne yow la njëkk nangu waaye nag ku kum ca nanguwut ku dem sa bàmmeel fekkoo ko ca la tee nga fekk ko ci ci yow la du ci moom وخير جيران يا أخي الطيب وسفني في باطن وساعر ورمي القلب يا أخي تائر وسفني في باطن وساعر وربي الخلق باقتاع ورقني ترقية خفية ببنت عين رقية صفية وقياسا أخربا وأنبا ومسلما وكافرا بزينبا